bis bi saa bu musaa ñëw ci kaw suuf it dina am kilifa diine gum ko darajaale pour fàttali mbooloo mi di bañ rek ku wane ginnaaw ñu bàyyi la di wax ak ñuy dund loolu ku ko xam xam nga ko ci moom kon kolëre mënta weesu loolu yàlla nag daa dogal ren bis bi mu darajaale ko kilifa goo xam ni kenn la woon ci moom ku ko xam ku ne xam nga koog moom man àndraa moom fekki ko Mbàkke Kajoor muy sëñ Sidi Maxtaar xalifa général kullu murit yal na yàlla doole leeram xalifa général ci kër sëriñ Mamadou Lamine Baara yal na yàlla doole leeram kon nuyoo bi dama ciy jiital ki war a jiitu muy sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sërif jéem yi ñu baal maaq xam ngeen ni ñun ñëpp ginnaaw yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu di ñaan foofu nga koy jaar te moom sërif la di ci teg sëriñ xaadim mbàkke mi nga xam ne moom la sëñ Moustapha moom seex sëñ Sidi Mokhtar yabal si ñu darajaale ko bis bi te moom sëñ Sidi Mokhtar ay ndawam du gan ci bis bii ci dëkk bii ay teraangaam du gan ci dëkk bii ak ci bis bii sëñ Bas mee toog xam na li ma wax bokk ci njabootam du fi gan moom di ca teg njabootu kër ma Massamba gi nga xam ni sëriñ Xaadim Mbàkke ngi nii toog moom sëñ Abdou Baaxe yàlla dogal alaaji ndaama laaj ko way juróom mu jox ko ko muy jiite fii imaamu ratib di ca teg ay rakam yi nga xam ne ñu nga jóge ca sëriñ ab Moustapha sàmba ñuy xalifatul haam sëriñ Abdou Rassaaxa ngi toog den ak sëñ Abdou Xabiir sëriñ Xaas Mbàkke ngi toog rakki Maam Moor ak ñi ñu àndal di ci teg sëñ Abdou Akim Fall mi ngi ci sama ginnaaw su ma ko séenee moom sëñ Basir Fall alxuraan nga xay moom it ooy jërëm koo daal ci dëkk bi te am ci pas-pas lool di ci teg imaamu ratib buuna kunta mu Mohamed buuna ci ndànk gi waxtu wu ñu bari miin ne ko ci dëkk bi mu ànd ak Aline ak Seydi Abidine mi nga xam ne ci dëkk bi buuna moom sëñ Sidi Faata ñoom ñëpp ak kilifa yi ñoo ànd fees bi mënuma lim ñëpp dañu may baal bu amee ci kilifa yi koo xam ne jéggi naa ko ñu jéggal ma ko te xam ne jitaay bi moo mënta laaj pour ma lim lépp waaye du ñàkk a ràññee. monsieur su sous Ibrahima Ndaw teewal fi préfet département bu Tivaouane mu teewal fi gouverneur de la région mu teewal fi ministère de l'intérieur mu teewlu fi premier ministre teewlu fi le président de la république monsieur ak ñi nga collaboré yëpp fu ci waaye ma na taxawee ak foo mën a ne taxaw nga na nga war a taxawee ci bis bi sa kemtalaal kartan yàlla na yàlla mottali seen yéene. asalaamualeykum wa rahmatullah mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu ku ci ne ci turam. ak santam di jiital ci nuyoo bi sunu mbokk bayti rasul shérif li nga xam ne maamam moo waral tey jii guddi gi walla bés bii di ci teg nag suma sang yii ma am ci suma kanam te ñu ràññee ci sëriñ Xaadim sëriñ Basiru Mbàkke sëriñ Abdou Baaxe sëriñ Abdou Razak sëriñ Abdoul Khadir sëriñ Abdou Akim sëriñ Murtala Mbàkke ak sëriñ Abdou Lahad ak sëriñ Xaasim Mbacke Mbacke Balla maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccu wàccuwaay ma ñëwoon fi tey nag ci turu su ay kilifa ak ci ndigal ànd ak sama adjoint Omar Diba ànd ak Pape Diouf mi nga xam ne conseiller municipal la ca mairie Mewane te le maire Bara Ndiaye yebal ko ne na ñëw ànd ci délégation ànd ak MDL chef Faye bu gendarmerie mu représenté fi chef de poste am Diamé ànd aussi ak madame Ndeye Maguette mi nga xam ne mooy infirmière chef de post bu Touba mhm. ñëw fekk fi sunu chef de village ndax ñun nag ñooy suñ prolongement fii ci gox bi ñooy ay auxiliaire de l'administration ñu bokk daanaka buum gu ñu jokkale bés bu mel ni guddi gu mel nii ñu dara jaale ko ku mel ni te duma leen ñaan yéen sang ngeen ñaanal président la république dama leen di ñaan ngeen ñaanal son excellence monsieur le président la république ñaanal ko ñaanal sunu réew. faral di waxtaan ak administré yi dama naan leen. man de plan émergent wu président Macky Sall ni ma koy tënkee ci ay wolof wala ci saalum saalum mooy su xaleku man mënumaa dégg lu mooy ma làmb suma poos am suma soxla làmb poos daj dem réglé ko bu boobaa lay yaakaar ne man mii émergent na li ñëpp am jaadu na ngeen am ko ndax ay sénégalais ngeen à part entière et non entièrement à maa ngi doon wax léegi ne suma rakk suma xarit Richard Biram fay mi fi jógee lam ma woccal ca suma machine bële soo ko liiree boo tiitul war ngaa mën a jaax waaye li ma ci jàpp ci Touba mooy daanaka li fi ne li fi ne yëpp genn góor gu baax moo ko fi def defal ko ay mbokkam defal ko ay dëkkandooram kon nag ñun lu ñuy nee ne gan ñeenti weer doy na nag ci ngan déglu na gis naa te yaakaar naa ne bu ma ñibbee mën naa nettali mën naa wax sumay su kilifa li ma fi gis yoon wi ma jaar bi may ñëw nekkatul ci wax wala ci ay këyit gis naa nag ci programme 2018 la wax de même si weer ak fukki fan a ci des programme euh, Mékhé ndànk tubaafal mi ngi ci billaay wallaay dama ne li ma gis laa wax de inventé wu ma te waxuma lu du dëgg li ma gis ci këyit te dinaa leen wax ne toppaat naa ko programme route Mékhé ndànk tubaafal Fall mi ngi ci programme ak budget deux mille dix-huit benn deuxième ba Pire Mewane Daya lii moom dégguma ko yem ci gisuma ko yem ci waaye damaa jël service daf fi weer ñu ooma CRD ca Thiès di wax autoroute ñaari autoroute yu bees yi président Nasser muy autoroute bi jàll Mbour ak bi ñuy tuddee la Côtière may gan nag wax naa leen ne leen gan lu ne mën nañ ko ko tere ba mu des déglu xoole ak ñi bi nettali yëkkati naa suma loxo may nañ ma ma ne waaw su ma yoon wi directeur Ageroute bi yore Diourbel ak Thiès moom ma tont ne ma mi ngi ci programme man nag comme ab fonctionnaire dong laa fa ma mënoon a yem mooy laajte la ca des fu ma taseeg ñu baax ñi dama naan leen dimbal leen ma ngeen ñaanal ma waxuma ngeen ñaanal seen bopp ñaanal leen ma du ma ne ñaanal leen ma ci suma ay gii mu sotti ci waaye ci ndortel ay li laa bëgg ci ndorteel li laa wax de bëgguma toog fi bañ naan ma ngay waaj a dem ñu ne tali ba pare na ci ci ci ci laa bëgg Chérif loolu bàttale naa la ko. te yàgg na ko jërëjëf jërëjëf. baax na. ndànk te ku ne ku ne ku ne ngaay maxe rek Touba Fall da nga def ni ngaay maxe rek Touba Fall mu yoon. déedéet te lu mu fa am ci doomu aadama ci àll bi junni junni junni junni junni junni sa bopp góor ñu ngi koy topp bu soobee yàlla jërëjëf su jërëjëf sëriñ baax na jërëjëf ak su fulla balaa woote woote bi ñëw waaw kii ma àndal nag te mu toogal fi maire danaa ko nag jóg leen ci lii parce que duñu am dëkk bu mel nii ak li fi góor gu baax gi def ñu war a toog su ngeen jógee làqarti sottiwut yéeg leen su ngeen yéegee jaar ni may yéeg jaar ne xëy nañuy ñuy tasa ca borom yëf yi réseau beeg courant bi dégg naa bu ma yeggee comme ñun sas nañ ñu àllarba bu ne bala ñu naan midi war nañ teg ci taabalu kilifa gu mag gi di suñ kilifa ñun ñëpp liñ naan les faits sociaux maanaam tous les faits saillants susceptible d'être porté à l'attention du patron man de xam naa ne su ma yàlla mayee ma dund ba àllarba danaa ci dugal ne ñëwaloon naa président de la république bésu gàmmu fii ci Touba Fall waaye itam danaa ci yokk ne lañ wax te ma dégg ko te muy mbébétte lii la ak lii ak lii bu soobee yàlla man dinaa ko def maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf Ibrahima dégg nañ wolof dégg nañ sa kàddu yal na la yàlla may ndam. yal na la yàlla may ndam. nuyu mbooloo mi yëpp cee jégglu ndax xam naa fi waxtu wi toll te ñii nga xam ni ñoo fi ñëwit seeni soxla am na lu ma ci jot maa ngi leen di ziyaar njabootu xaadimal Moustapha gii fi toog di kër Cheikh Mouhoundou Lamine Baara Serigne Xaadim mu Cheikh Sidil Mokhtar sama mos ak waa kër ga yëpp xamal nañ man ni ma sama xarit Cheikh Ndiaye mu Cheikh Sidil Mokhtar mu ngi ci. waaye ba tey waa kër Cheikh Sidil Muxtaar Serigne Bassirou Mbacke mu Serigne Khadim Awa Ba moom Cheikh Moon Lamine Baara délégation bi la bokk ak ñi mu àndanteel ñëpp ñoom ñëpp Cheikh Sidil Muxtaar amoon nañu wëlëre ak Alaaji Ndaama Fall ko njabootam waaye dolli ku waat na tey nag ngir Cheikh Cheikh Sidil Muxtaar yal nañu ko yàlla fayal bi may dugg si nag dama fekk le délégué du président de la république. représentant tous les ministres le sous-préfet Ibrahima Ndaw jël kàddu di nit koo xam nit lii mu wax am na ñi ko xam confiance bi président de la république am ci moom mu servir raw mu jeex mu renouveler ko indi ko meewaan ca meewaan du n'importe qui lañ fay indi am nay projet meewaan ku fi ñëw yàlla na ngay recteur cent vingt trois arrondissement moo am cent vingt trois yu ci bari ay lycée la ñu mais wante université yi la bokk ku fi ñëw yàlla na ngay recteur wax na ko léegi cent vingt trois sous préfet ñoo am quarante cinq préfet quatorze gouverneur cinq cent cinquante sept maire quinze mille neuf cent villages mooy Sénégal tey nag Alaaji Moodu Maamun Fall Ndaama bienfaiteur de l'islam tey bis bii guddik Seydina Mohamed la waaye xam ngeen lan moo ci ne doom bu matee doom day mottali bëgg-bëggu baayam boo àndeeg nit di daw lenn rek nga bëgg lenn rek gay def buñ la gisatul la nga bëggoon ca la ñuy xool ca la ñuy def màggaluk Tuuba lu Alaaji Ndaama doon def dara manqué wu ci guddi Seydina Mohamed gii lu Alaaji Ndaama doon def dara manqué wu ci njabootam gii walbatiku àndandoo ñoom ñëpp laxasu ni la bàyyi bëggoon mu neex yàlla neex yonant ba ci loolu la ñuy ne moo waral lii tey Cheikh Sidil Mokhtar sama mos alaaji ndaamaa nësëraloon boppam boobu tëddagul njaboot sëriñ Tuubaa yu bari tudde na leen bis bii waa kër Sidi Malick yu bari tudde na leen bis bii waa ndang kër Cheikh na Cheikh Saad Bou tudde na leen bis bii tey jii nag ca xaritam ba ka mu daan dem di ko seeti muy Cheikh Sidil Muxtaar mu baax ma loole mu waxoon te doom yi déggoon ko bi mu tëddee ñu ne la bàyyi baaxoon duñ ko bàyyi mu maalex yàlla na ko yàlla dolli wér dan yow ak say rak bërki démb bi nga yebalee maam Cheikh mii ak Papal Saan Kébémer lañ ma fekk ma ànd ñoom ñu dem ci la fekk fa sëriñ Moustapha mu baax mi la mu waxoon nit bis bi dana xat programme woon nañu ba noppi waaye dana nu seet sëriñ Basiru mii may waxal xam na ni ci suba ba nëgë ni maa ngi ak délégation départementale Kébémer bii maa ngi fanaan ak Moustapha Diop ministre ak Ndey Silla Ndey Dieng Ndey Sali moom Papa Dieng looloo tax baat bi dee. waaye fii àggaluma la ma waroon a def ca département Kébémer dama wax ñépp xam nañu ni Touba Fall mu xeex day sama bis am na waxtu woo xam ne bu nu fa yeggee damay tàggoog délégation bi ni préfet man maa ngi dem Touba Fall moo mën di nii Serigne Khadim balay sa yal na yàlla guddal sa fan Cheikh Sidil Mukhtar mii nga xam ne Serigne abdul Aziz xalifab Serigne Baara ñeent fukki at ak lu topp Serigne Modou Baara nekkoon magam ba sëriñ Baara génne àdduna Serigne Modou Baara la fi ba ba Serigne Modou Baara demee Serigne Abdou Aziz la fi ba njabootu Serigne Baara ñu ci bari dañu leen a wax di leen am lii nga am Serigne Baara Serigne Abdou Aziz a ko def yàlla dogal bi mu fi jógee Cheikh Sidil Muxtaar dikk ni bëggatuma dégg tiijaan bi baa xaadir bi baa murit bi ashhadu an laa ilaaha illallaah laa bëgg a dégg bokk ndey bokk baay man nag damaa doyul ci moom seede war na Cheikh Ndiaye mais njaboot gi toog nii jël lépp jiital dan yàlla na yàgg ak rakkam Mamadou Fall mu baax mi daf may wax ni ma boo tuddee dan bul tuddati kenn doy na mhm. mat na mag mat na baay tubaarkal la ñu ànd àndin wu rafet alaaji baara toog nii toogaayu alaaji ndaama fall ba lépp loo xam ne alaaji ndaama fall daana ko def ci bis bi mu àndandoog mal bati walbatiku di ko def bëggoon lool président de la république fii Abdou Diouf ak inauguré Assane Diop nekk ministre de la santé keroog ca suba googu ak Alassane Dialy Ndiaye dañul ba fii na toll sàmm le berger laa la wax ni mën naa maye soow mën naa maye meew waaye jàpp ci jur gi maye nag borom jur gee ko sañ yow sa maam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye Serigne Touba Serigne Touba la mu waxoon rek tubarkalla loolu moo ci nekk Serigne Khadim balay sa yàlla na yàlla guddal fan bi الحمد لله الذي جعل العلماء من الرسول والخلفاء عليه الصلاة والسلام وارتداهم لشهادة توحيد الملائكة الأرض والسماء وقرهم بنفي الأصوات مع قيله بقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginaaw bi nu sante yàlla subhanahu wa taala di julli ci sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam di sant seexuna si ahmadu bamba xaadim rasul di ñaanal cheikh muntaxa mi nga xam ni moo fi nekkal sëriñ tuuba di sëriñ tuuba sunu borom guddal aw fanam ba yéene ji mu am ci toolu lislaam sunu borom àggale ko ci jàmm mu ànd ko mbooleem jullit yëpp ak mbokki taaliba yëpp ak soppe yi ak wëllëri yi di nuyu mbokk jullit yi ñu fi fekk yépp di jiital ci nuyoo bi siyaare yi sarif mi nga xam ni tey guddi gii képp ku am jàmm ku tedd ka la muy Seydina Muhammad alayhi salaatu di ko jiital ci nuyoo yi ak siyaare yi di ko ñaanal sunu boroom guddal aw fanam ba li mu yéene ci toolu Seydina Mohamed sunu borom defal ko ko ba defal ko lu kawee njortam di indi ay nuyoo ak ay siyaar yu tukki ci Cheikh Moustapha waaye nag nuyoo yi ak siyaar yi lépp day delluwaat ci ndigal ndigal li nag ci Cheikh Moustapha la jóge waaye nag lépp day lenn ñu fekk fi sunu kilifa sëriñ Basiiru mu sëriñ Xaadim Awa Ba kaddu gi sax moom kaddoom la waaye wax jii ñuy wax ci ndigalam moom mii lañ koy waxe ndax moo fi jëmi Cheikh Moustapha di fi jëmi Cheikh Mahamadou Lamine di fi jëmi Cheikh Sidi Muxtaar kon ci ay kaddoom ci la ñuy wax ndaxte sëriñ bi noonu lañu ko daan digale ci bi mu fii nekk fu ma leen man di yabal ku ngeen fa fekk mooy seen kilifa ba keroog ngeen fay jóge te ndigal moom caabi la bu ëppee lu ubbi bu yeesee lu ubbi te ndigal sëriñ la ci kañ ko digal ak ndigal sëriñ Tuubaa daan wax naan kuñ jox ndigal li fekk ndigal la jeexagul ndigal la mooy sa sëriñ kon dafa am solo lool ci dégg ndigal ci topp ko te buñ la ko joxee nga jël ko te xam ni ngaañ bi ci am kon ñu ngi leen nuyu ci turu Cheikh Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Bassir mi nga xamante ni kaddu gi kàddoom la di nuyu suñu mbokki bopp yi nga xam ni moom lañu fi fekk ñu waa kër mustafaa Moustapha Massamba ngeen xam ni dëkk bi cosaan la lépp ci sëriñ Massamba la waaye nag ci sëriñ Touba moo waral saa su nekk day gën a yokk waaye du wàññeeku may nuyu sama xarit bi Sarif Aydara Guyat moom sama wëndëre sama xarit la lool saa su nekk ñu umpante di ko siyaar ci bisam maama bu tedd bi di nuyu sëriñ Ibrahima Ndaw ci kàddu yi xam ni wax na ko fi kaddu yu rafet kàddu yu dëggu kaddu yu am solo bi ñëwee itam fekk nañ fi sunu mbokk sëriñ Mourtala mu sëriñ Bassirou Khoudia Dieng sëriñ Moussa nag boole maag sëriñ Abo mii di sama rakk sëriñ Xaadim Mbàkke mii di taawam ak sëriñ Saalihu ak mag ñi nga xamante ni ñoo doon ànd ak Cheikh Sidi Muxtaar di sëriñ Jaw Ñang mi ak sëriñ Jool Seck ak sëriñ Cheikh Ndiaye moom ku nekk xam na ko boole ma ak ñoom loolu bu ngeen gisee nag mooy lépp loo xam ni alaaji ndaama seqoon na ko Cheikh Sidi Mokhtar na ngeen xam ni kër gi kenn desut ñëpp ñëw nañ te it bis bii nga xamante ni moom la dajeel moo waral ñu baree baree bari sax ñëwuñ waaye fenn fu nekk am na ku fa jóge koo xam ne ci sëriñ bi la takk koo xamante ni sëriñ bee ko yaral boppam di nuyu tamit sëriñ Mahmoudan mi nga xam ni moom lañu fi fekk di ko jox ab siyaareem te di ko xamal ni ko nag Serigne Moustapha nee na mi ngi gën a fedd li kóllëre gi nga xamante ni seqoon na sa waajur tedd wii di sëriñ Dama Fall ak Cheikh Sidi Mokhtar ndaxte ñoom ñaar daanañ wéet wéetaay woo xamante ni day yàgg lool waaye lépp ay njëriñ rekk la kon ñu koy ñaanal sunu borom tabaraka wa taala yëkkati ko ci jàmm ak salaam te am nañ ci yaakaar ndax ñi fi daje ñëpp kenn ku nekk am na foo xamante ni jaar na fa ak yow tey it sunu boroom faw day nangu xol bu sell boo xam ni day danga ko ñaan ci jëmmam ju tedd joojee jëme ko ci sa mbokkum jullit ñu am yaakaar bu baax nag ci moom di ko am ci njaboot gi ndax tamit seen tànki waajur lañ jaar kon ba tax na sëriñ Moustapha nee na loolee sëriñ Sidi Muxtaar jàppoon mi ngi koy gën a feddali ci njaboot gi di ko gën a feddali seen wàll wu tedd wi te di ko ñaanal suñu borom bàyyi ko ak yéen ndax njariñ la ci àddina laa wax ndax moom foo dem ci kër Serigne Touba rek am na lu mu fa jëf am na ñu fa jëflanteel ca mag ña ba ci ñëpp kon loolu moo waral fenn fu nekk waaye jóge fa te kenn ku ne xam na ni tey jii foo xat na lool waaye nag moo tax jëf lu baax ci doomu aadama rek moo am solo moo waral kenn ku nekk bàyyi sa itte ñëw kon yéen ñi nga xamante ni yéen lañ fekk si ñu leen di ñaanal suñu borom tabaraka wa taala jàppale leen ba fa seen waajur tegoon seen tànk ngeen teg ko fa te it ma nga fa ndax yéen a ngi dox loolu yéen tamit di gën a feddali rek mbégte rekk moo waral kàddu yi waaye sëriñ bas ci kër gi la mu fa wax rek doy na sëkk te loola bu ñu sañoon tey jii ñëpp danañ ko dégg ndax kàddu yu am solo la kàddu yoo xam ne kenn mënu caa teg dara di sant tamit sëriñ Jaaja Mbay mu baax a baax wax kenn ku nekk xam na ni moom ci kër gi la te kenn ku nekk xam na waajur la kenn ku nekk xam na ni mu demee woon ak sëriñ Sidi Mokhtar ak ñi ko jiitu woon kon sëriñ Dia ñu ngi lay ñaanal suñu borom kattanal la wéral la am na ci loo xam ne sa pas-pas rek moo la ko may waaye ak sa jom waaye euh, ak jamono am na lu mu la mayut waaye nag loolee suñu borom ñu ngi lay ñaan mu gën laa dëgëral bu baax. ci délégation tamit ànd nañu ak sëriñ Mar moom taalibe Cheikh Sidi Mokhtar di soppeem lool ay waajuram ak sëriñ bi nekkoon benn lool kon daal kër gi ñëpp ñëw na kon daal suñ bas kaddu yi kaddu yi cant rek ak ngërëm di ñaan suñu borom lépp lu ñu ñaan ci bis bi suñu borom dafa na bis bi àttana na lépp bis bi tamit ñu ciy fàttali tuuti rek ñu buñ jàpp ni rek lekk la ak naan li taxoon mu am ak ki taxoon mu am ñu koy fàttaliku ci tudd yàlla jàng alxuraan jàng xasida ku ko mënul mu sikkar la ci ëpp na mooy xam naa ni loolu ñu ci bari ñu sant ndaw moom yaakaar mu ñu man muy xulwa yi ndax dafa xaw a bari lool lim bi juróomi junni xulwa ak ñaar fukk ak juróom taamu nañ ko ci bis bi lool waaye xam naa ñu sant na moom ñu reere ba kii rek daanaka sëñ Ibrahima yaakaar naa du ci mën lu bari kon loolu ngi koy sàkku ci ñëpp ku tamit loolu loo mën lu nekk rek nga def ko ngir dundal bis bi kon ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp kenn ñu ñu fekk ko ay déwén yi déwén te kenn bañ a manqué liñ bëggoon a wax ëpp na lii waaye nag euh, suñu xol dafa sedd guy ba liñ bëggoon a wax lépp rek suñu xool sedd lool lool lool lool te fàttaliku démb moo waral lii kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alaaj Njaay kaddu yi yar na ko. ci lu baax. ci loolu lañ ko juddoo. ci loolu lañ ko juddoo. loolu lañ ko nàmpatal. ci loolu it lañ ko ci lañ ko ci lañu ko yar. yaru. yaru. am xam-xam am xam-xam jàng. nangoo joxe cër. nangoo sa bopp. wayefal sa bopp. nag. wayef nag. am cër rek koy def. ku am cër dong moo koy mën a def. ndax ak tawaadu. ndax. toroxlu toroxlu. wàcce sa bopp wàcce sa bopp. dafa bokk ci mandargay sang. dafa bokk ci mandargay sang. te yonente bi nee na. te sallallahu wa sallam dani. man tawaadaa lillahi rafahu llahu képp ku wàcce sa bopp. képp ku wàcce sa bopp. yàlla mu lay yëkkati. yàlla lay yëkkati. fa tabaarakallaahu. jàmbaar la jàmbaar seen xaadim. man dafa man man la bëggoon ma wax. nee man mii la bëggoon ma wax. insisté na na ci man ba taay. ma ni ko déedéet. ndax ñu jox la lépp. ndax ñu jox la lépp nag. nga jël lépp. xel fekkewu ko góor fekkewu ko. jërëjëf. balay sa jërëjëf. taxawaay bi a dëkk bi am démb ci guddi. ci pendant trois heures de temps jàpp naa ni président Macky Sall rek moo war a mën a joxe ordre pour loolu gaawe noonu. transport bi cinquante kabe yàlla booba dëkk bi day door wax naa la ku doon togg vingt kilo du jeex boo toggee cent kilo boo ko séddalee fas sa kanam baa ñëpp du ko mus xam nga kon yokk am na coupure yi daaw xaw ñoo rey ci gàmm gi démb mu tàmbali xëy di nuyooti heure bii démb lañ ni lu guddi guddi bu ci yàlla andee dinañ ñëw fi ñuy waxee rek oto ne dër signalé ni ñëw naa dem ca tëli ba xaar camion mu jël cent soixante kawe yaa andi ko ñu demante ko ci guddi gi monté ko ci guddi gi taal ko lépp ne ràññ loolu jëf ju wér cëng la ñu ngi ñaanal yàlla ka ko def ak ku mën a doon yàlla na ko yàlla yéegal. loolu ëppoon wax. 164 yàlla 100 millions ëppoon naa bañ a wax. loolu vraiment daal taxawaay bi autorité yi moom seen baat ci raay ba jéem nañ seen kem kattan monsieur le pré sous préfet nga wax leen ni ñoom autorité yi. su defee liggéey bu mel nii warees na koo wax waaye nag am na loo xam ne boo ko xam nga li la ko may alaaji ma yar na njabootam def ci ñoom jikko ju baax ak yar bu baax ba ñu mën a waxantee kilifa am na noo xam ne suñ ñu melul won bu ne daan amul woon relation yooyu ba ay rakam Makhtar Cissé du intervenir waaye bu ñu saisir sous préfet mu saisir gouverneur ñu saisir directeur à trois heures du matin cinquante café yaa ñëw xam ngeen am na lu tax di jar cent millions kon alaaji Ndaama jërëjëf subhanahu zu kanafin wa waaqi wa nahnu fi kanafihi almanii min kulli sarrin wa azan sanii mustamsikina bi qiyaasi ahmada xayrul anaami muntahan wa mubtada من قالها في زمن وباء أمنه الله من البلاء اهد جميعا الصراط المستقيم وبسهيه كلنا بلا سقيم لك الخطاب يا قريب يا مجيب يا من به لا زمني خير عجيب habli walillazina qad taallaqu bi yahudan bihi li xayri nutlaqu iyyaka na'budu wa nasta'inu fa innaka alma'budu walmu'inu dalaltana bika alayka ya raqib ya man bihi yanhul lahu kulla naqib ya za sirata almustaqim hablana هدى به يخبيتنا من قبلنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يحبنا وجه لنا زوات دينا فائقا ولتكفنا عدا معا وبائقا وبيننا وفع مع الأولاد ya malikal ibadi wal biladi wa barikan fiina wa aslih umrana ya musiban bi xayri rabbin durrana lanastajib ya xaaliqa alkibaari wa jumlata alsigaari anta albaari wa hab lana zurriyatan tudiimu alamala saliha ya qadimu alyumnu wa yusru wa xayra sadadi fi xayri zikrin qad ataa bi madadi qad faaxa kulla zikru zikru ahadi almaliki almukarrami almultahani faaza saidu bilqurani min dari naja bima yudiimu xayra sadadi allahu min kulli karimin akramu man amahun qaada allahu takaramu أسلم له كلك عن إيماني ولازم الإحسان للرحمن واجه بالسكر بلا كفران تكفل حسابه مع النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jërëjëf jërëjëf léegi nag dañuy taatan rek Chérif ñaan ndax toogaay bi yàgg na guddi gi nag daañu dellu siwaat saa jéey bu Louga Serigne Bassirou Amar Ablaye Diop Bichri xaritu ñëpp rawatina nag Serigne Bassirou mii toog heure bii biig ñoo nekkoon kon ñooñu ñooy fanaan ci baas bi Chérif ak Serigne Daouda Fall waaw moo Daouda Fall maam Balla Ñang daayira Kanzul Muhtadin daayira Nooru Daarayni daayira sëriñ maam Khady Diop Khadim Diop maam maam Khadim Diop mu sëriñ Diop waaw ba léegi nag nu rafetlu njort yi te nu talal loxo yi wala déet que nag dafa am fi ñaari yëbbante jëm gi toog di ba monsieur le préfet Ibrahima Ndaw du daf may daf ñu yóbbantu woon fi toog ak waa Cheikh Ahmadou Bamba nu ñaane président Macky Sall wala wax la loolu moomu ñaanuñu de yow yaa ñaan ñaanal ko wax day leer ñu ñaanal ko te ñaan gi day dal beneen ñaan gi ni ñaan tim mbaaxu yàlla tem mu nangu nu ñaari ñaan gi mooy li nga wax yëbbante gi ak alaaji Ndaama Faal ti barka waajuram ndax barka waajuram moo waral yépp yàlla dellu ko fii ak ñaari tànkam di dox di wax te nu fekke moom tam xam nga alaaji Ndaama ñaan naa yàlla mu dellu si fii di dem di dëkk di wax te yomb yàlla te sha allahu rabbuna ضامنك الله تبارك وتعالى ذلك البخيل لا يضمن على الله ku am ñaaw njort moom loo wut gaat am ci yàlla beneen bi Macky Sall yal ko yàlla dalu ci chaisam gi te boo demee nag sur jee bi miin ndakaaru dëkk ndakaaru xam ndakaaru te Sénégal à cent pour mi ngi lay di gërëm di sant te na dëdlu gëlu neppi bu tontu kenn te liggéey liggéeyam bu mu sa tontu benn mbindeef lu dul sëriñ bu mu toogal rek ci chef religieux yi ñaaral jox ma ko sama numéro téléphone boobu te xamal na ko na ma recevoir lu jot jot na man daax bi léegi mu jeex te bind naa ko àddina leetar te jusuti benn nangu ma am naa fulla am naa fayda du ma nangu loolu tey du ma ko ëllëg na wax ak man bisimilah kon nag mu ngi noonu ñor naa xam de te mu ngi dafa am fu mu yem bisimilah nit nag bu di fulla ak fayda dara du fi des aoudu billahi min alsheytani irajim bisimillahi rahmani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 اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل واستر جميع المسلمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير إنك غفور رحيم اللهم ارحم موتنا اللهم ارحم موتنا اللهم ارحم موتنا واشف مرضنا بجاه نبيك ورسولك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم لفواي ñaan